wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi wal mursalin sayidina muhammadin makin wa ala alihi wa sahbi wa sallim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu baax tey ziare suñu kilifa yi ñu fekk jotaay bi eh, di jiital ci nuyu beeg ziar bi suñu kilifa yi ñu fekk di ko teg ci loxoy sëriñ Cheikh Niass suñu wóllare suñu xarit xanaa di yëkkati kàddu rek yoo xam ne mënut ñàkk ci ndigalu suñu kilifa gi ñu àndal Serigne Cheikh Thioro Mbacke honorable député ngir teewaayam ci bis bi nga xam ne li ko waral dafa bari lool bi ñu ñëw rek ñu ngi koy waxtaane ci yoon wi ñu ne sëtub Mamour Anta Sali wala sëtub Serigne Mboussobé bu jugee dem ci kër Alaaji Abdoulaye Niass loolu ku xam du la bett ndax ma nga tàmbalee ca Paati Bayaan tàmbalee ca Paas Koto ba ci Somb ndax ku ne xam na ne Maba Jaxu Ba yàlla na ko yàlla yërëm moo amoon yéene jihaat wowoon ci magi Sénégal yëpp mboolem jullit yi eh, ci la dajale woon mag ñooñu nga xam ne bi mu ñëwee keroog Mbàkke fekk fa suñu maam maam Balla Aïcha fekk mu jëm mag ci la ko booleeg suñu maam suñu Mor Anta Sali mu ànd ak sëriñ Touba ànd ak Soxna Jaara Soxna antanjaay Ndiaye ak Serigne Bousso ak mboolem mbokk yooyu ñu dajee fii ci Saalum ngir liggéeyal yàlla ngir jihaad kon jotaay bii loolu moo ko gën a firndeel ñoom ñaar seen diggante nekkul lu xam ne politique kase ndax am na mbokk ma ko wax léegi li ko jiitu mooy ca jolof lañ jugee fi ñu naan xuru baxal côté sagata jolof yaakaar naa foofa ñi baax ci réew mi bari nañu fa cosaanoo nga dem Sine Demba Buna maam El Hadj Malick fa la cosaanoo nga ñëw Mbacke Bari Serigne Touba fa la cosaanoo maam El Hadj Abdoulaye tamit ca xuru baxal booba la cosaanoo ci côté sagata jolof kon loolu tamit lu leen boole la nga xam ne diggante El Hadj Abdoulaye Niass ak sëñ Mor Anta Sali ku ne xam na ko ak El Hadj tamit ak Serigne Bousobé. ba waral nga xam ne 1922 bi El Hadj Abdoulaye wuy jee boromam marché yooyu suñ mbàkk bu soo doon def mi ngi ko ci fàttali di fàttali maam El Hadj ni mu meloon ci xare ak ni mu nekkoon jàmbaar ci xeex te loolu la ko may mu xam ko suñ mbàkk bu soo mooy dafa àndoon ak waajuram ci xare booba fekkante fekk El Hadj ñas kon seen relation foofu la tàmbalee jiitu na Serigne Touba ak maam Khalifa eh, jiitu na bàyyi Niass ak waa kër Serigne Touba ma nga tàmbalee ci El Hadj Abdoulaye Niass ak suñ maam suñ Mor Anta Sali ak suñ maam suñ Bousobé. te sëñ Cheikh Thioro sëtoo ci sëñ Bousso bi moomu sëtoo ci sëñ Mor Anta Sali kon relation bu yàgg la ñaareel bi tamit li ko waral mooy bëgg-bëgg bii ñu bokk ci réew mi mooy nekk ay kilifa diine nekk ay citoyen bokk ci réew mi bokk ci ñu ko war a defar nga xam ne ni waruñoo toog rek di seetaan comme la daan am bu njëkk nga xam ne dañ naan ñu yéen sëriñ si yéenay féete ca daara ja di ñaan bu ñëwee jox leen addiya bu màggal wala siyaare amee rek ñu siyaareel mu jeex waaye dañ daan nax rek waaye dañoo dem ba xam ne réew mii bu baaxee ñun la baaxal bu mënee ñun la bonal ndax sëriñ si moom bu réew mi doon tàkk mënuñoo dem fenn sëriñ bu am double nationalité yaakaar naa bëriwul te bu réew mi doon yàqule seen njaboot ñoo ci yàqule te responsabilité bi leen lislaam jox jox ko kenn ci réew mi kon amatuñ droit di toog di seetaan benn minorité rek jël réew mi en otage di lekk alal réew mi di ñu nax di teg ak njubadi te loolu bu ñu demee suñu kanamu suñu borom ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ndax suñu maam yi li ñu liggéey fii ndax li leen indi indi Saalum tamit fokk ñu wax ko mooy jihaad moo leen fi indi woon ngir taxawal baatub diine nga xam ne kër ba mabba daanoo 1867 ca somb ñii ci lañ woy dem kajoor suñ Mor Anta Sali ànd ak Serigne Touba ñëw Pataar ba nit ñi tasaaroo ba diine mel nii mel kon la leen indi woon fi wuruñ ko fàtte mooy taxawal diine taxawu réew mi kon Serigne Cheikh Niass ak Serigne Cheikh Thioro li leen boole réew mi la mooy ñu xam seen responsabilité ci réew mi xam ne dañoo war a bokk ci ñi koy defar bu weesoo toog ca daara ji di jàngale ak nekk ay imaam ndax dañoo war a xam ne président de la république war naa mën a jógee ci jàkka ji dem dem dem dem jiite ji réew mi te loolu gis nañ ko ci Ousmane Sonko moo ci dajale ñun ñëpp gis nañ ne ab juddit la ab gor la te ku jub la te bëgg réew mi te tamit xam na ne diine ji ñor na ko lool ba géeju na ci xam-xam kon bu ñuy tànn njiitu réew ku mel noonu lañ soxla ku xam ne nii bu ñu soxlaa ab sëriñ daara man na ko ndax am na daara ci këram bu ñu soxlaa imaam tamit mën na alxuraan ju neexta mokk jàng na diine kon li leen boole mooy ñoom ñaar mooy dañoo gis Ousmane Sonko. suñ borom def ci moom jikko yi nga xam ne ni moom lañ yaakaar ci nga xam ne bu yoree réew mi maanaam naqar yi ñu nekkee depuis 1960 muy réew moo xam ne nii alal ji ñëpp bokk mbooloo tuuti ñoo koy séddoo di nax si ndax damay faral dégg ñu naan sëriñ si sëriñ si nañ wax nañ nàngam sëriñ sax ñoom dañ leen dañ leen exploité te ñoom ko ndax ñoom ñépp tamit ay victime lañ ci système bon bii rek ndax damay dégg ñu wax ñaan système bi système bi système bi du ay doomu aadama maanaam aw doxalin la wuñ teg woo xam ne ni ab minorité moo ko teg di exploiter yeneen doomi aadama yi man nga ne boo doon xool matuñ cinq pour cent ci population bi waaye boo doon xool li nga xam ne ni mooy koom-koom réew mi plus de 80 pour cent wala 90 pour cent ñoom ñoo ko yor te loolu jaarul cim réew loolu Ousmane Sonko woote ne na ñëpp ñëw ñu changé ko te loolu ñun nit yi daara yi ak nit yi diine yi dañ cee gis suñu bopp moo tax ñu ànd ak moom 100 pour cent ngir lii fi nekk ñu jëlee ko fi du jëmmi Ousmane Sonko moo ñor waaye jëmmi projet bi nga xam ne nii lu doon nelaw ci ñun la mu ñëw yee ko moo tax moom waaye du jëmmi Ousmane Sonko ji moo ñu ñor projet bi nga xam ne nii baatu dëgg la te diine loolu lay dëggal suñu mag ñi maam yi bu fi nekkoon gëm naa ne bu ñu doon tànn ci ñii di laaj réew mi Ousmane sonk la ñu àndal ndax moo fi wote njub kon loolu moo ñu boole moo ñu boole ak suñu Cheikh Tidiane Niass mii ginnaaw ba ba ñu fàttalee tamit suñu maam yi nañu àndee woon loo xam ne nii daanaka jege na ñaar téeméeri at ci diggante sëñ Mor Anta Sali ak maam Abdoulaye Niass ci diggante sëriñ Bousso be ba ñoom sëñ Mbàkke Bousso ak sëriñ Touba ak maam yu baax ya kon loolu moo ñu fi indi moo waral teewaay bi suñu Cheikh mi ngi ziare mbooloo ñu fi nekk ñëpp di leen sat di leen gërëm di leen xamal ne suñu Cheikh Tidiane Niass mi daal am nawle bu mat a àndal la ñu ko fi waxee nii rek sëtub Alaaji Abdoulaye Niass moom ba leen nii wat a bett kenn ndax ku xam histoire xam maam Khalifa xam maam Alaaji Abdoulaye Niass xam Cheikh Ibrahim da nga leen xam ci xam-xam ci diine ci ngor kon ab sëtam bu ñëwee engagé woon nii ci dëgg war a bett kenn te ñun suñu maam yi ci noonu lañ nekkoon keneen ku fi mel neneen tamit yaa ko waaye ñoom ci dëgg lañ nekkoon di faral dëgg boo gisee ñu amoon problème tubaab bi du dara dañoo ñëw teg projet de société tubaab bi ne li ngeen fi bëgg du fi am moo tax ñu amoon ak ñoom problème loolu war a laaj Abdoulaye génnoon dem Gàmbi sëñ Tuubaa tamit ku ne xam na dundam daanaka 32 ans yoo xam ne ni génn ko ci loxoy tubaab bi te dara boolewu leen woon lu ñoom dañoo ñëw ne dañuy teg projet société bi yónent sallallahu alayhi wa sallam tegoon tubaab bi ñëw ne damaa bëgg ñëw noot leen coloniser leen kon ñu ngi sant ñëpp di tuub ci kàddu yi waaw ñi ngi ñi ngi leen nuyulee suñu meen mbokk mu baax mu ñu muy Cheikh Abdou Lahad Jaxate di sëtu suñu Abdou Lahad di sëtu suñu Amsatu Jaxate moom it tamit ku engagé wu ci parti bi di wóolal sëriñ Cheikh kon teew na ci jotaay bi kon ñu ngi sant mbokk yu baax di nuy imaam dara mi ñu àndal ak sëñ Ousmane Diouf ak mboolem ñu ñu àndal jugee Ndakaaru ñu ngi leen sant baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ci biir loolu sëriñ Cheikh Thioro maa ngi lay garantil ne président Ousmane Sonko maa ngi koy garantil ne. wallahi lew na di lew na gii du kër gu ñu jënd barke Seexul Yàlla ñun buñ ñun ñun ñun ñi fi toog ak ñi fi jógee amuñ suñ njëg xam nga ñun bañ njëg la ñam dignité yëg-yëg respect bëgg a defar réew mi ci santé mustaqim defar ko président Ousmane Sonko wax na ko wallahi saako ceeb bu doon jar un million heure bu ma xëy jënd ko barke Khalifa Niass te amee wu ma ko lenn lu dul barke maam El Hadj Abdoulaye Niass barke maam Khalifa ak mag ñu baax ñi dañ ñaan sotteeku ci bu doon jar million ñii jotaay bi kenn ku ci nekk mën naa ne danaa ko jënd waaye kon lan la ñuy xeex moom la ñu war a xool lan la sëñ Cheikh mii di xeex lan la diw mii di xeex la diw mii di xeex loolu la war a xool lu nekk ci ginnaaw loolu sama ceeb a ngi niin maa ngi lekk courant heure bu ñëwee damay foto yoon na ñu yónnee ma xaalis ma fay yëgu ma sama kër nu mel lu ma sol lépp lu ma sol dañ dañ koy xot jox ma ñaw yëgu ma lu mu xew waaye nag est-ce que loolu su ma naree dëgg continuer ci ëllëg yàlla du ma laaj ëllëg ña nekkoon sa gannaaw noo leen sàmmee woon ah day neex rek nga toog déedéet buñ fàtte it ne jamono métti woon na jamono métti woon na lool waaye nag bu ko suñu mag ñi ñaanee ba mu nar a neexee ñun nañ ko defaree ci dignité ak respect ñun président Macky Sall man awma benn toq mbañal bu ma koy def parce que man yàlla du bëgg lu may bañ wala xad karam naa bani aadama wa xamal naa fi barri wal baxri yàlla du bëgg lu may bañ waaye nag doxalin wax. moo ñu neexut ndax ñun ñii kenn ku ci nekk boo reppee am nga fa mu jaaroon ak moom avant deux mille deux mille douze am nga fa jaaroon ak moom waaye da dem ba gisatoo lam waxoon ak nit ñi nga rëccee ko ndànk dem xool koo xam ne naa ma ñëw ci président Ousmane Sonko maa ngi seddalew mbooloo mi ne billaahi wallaahi watallaahi jàngkatu alxuraan la jullit piir la xàqan du jëw du jël lum moomul du wax lum xamul te lépp lum mu la wax def na ko